ci yenn yi. ci yenn kaay yi. El Hadji Ousseynou Ndiaye. dal leen ak jàmm ci xibaar yéene kaay yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo laas yéene kaay di xamal ne loolee yomb naa xam ñetteelu man mandat gi moo fa jaar maanaam daal kàddu yi nga xam ne gi duñu xamale ne am na ñeneen ñoo xam ne rek jamono ji kàddu yi nga xam ne jotoon nañ ko yëkkati ci ñetteelu mandat yu ni mel jot na leen fee jële réew mi yéene yi di ñu xamale nee kay ki nga xam ne rek moo di Sori Kaba ak Moustapha Diakhaté moo di maître Moussa Diop ñëw ñetteel leen di ñu xamal ne ñetteelu mandat dafa mel ni kay njiitu réew mi Macky Sall kafu ci réew ci buggul kenn koo xam ne rek da yëkkati kàddu jëmale ko ci googale fànn gi ko amal ñu xamal ne na foofee ko war waral ndekete am na leneen loo xam ne moo nekkoon ci ginnaaw Dakar Times si duñu xamal ne ak lu mën a xew daal moom koy jamono ji nag amal nañ ko ci réewum Sénégal waaye nag li nga xam ne rek mooy nemmeeku nañ ko ci Pikine centre ba nga xam ne fa lañ ko doon defee dañu koo dajji waaye nag épreuve kenn jotu koo laal jamono ji nag

neema IBK jamono ji nag dafa am ak malaise enquête moom ñëw ci élection locale yi ak tolluwaay gi di laajte nag ndax jamono ji toxal gi maanaam daal date gi nga xam ne rek jàpp nañ ko bu ñu ko soppee ñan lay arrangé moo xam ñi nekkee ci ku jégi wala sax ñi nekkee ci nguur lii yéene kaay ñu xamal ne lu doy kay moo xew ci réewum Sénégal benn soxna boo xam ne da doon seetaan génn ak sëriñ goo xam ne rek da doon wax ci télé bi naan mën kaay gi dañoo xamale benn xale bu jigéen boo xam ne ay atam ci fukk ak juróom dong la tolloon faram daal di koy ëmbal maanaam daal ba mu am juróom benn weer yaayam nag ba mu ko yëgee di aw juf daal di koy jàpp wulli ko ba mu mujjee faatu mu nekk nag lu doy waar